julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa démb bi ñu yëkkati jataay bi noo woon ci groupe quarante cinq noo ci groupe quarante cinq groupe quarante cinq dégg ngeen feebar bi leen dal walla feebar bi leen dal ni muy manifesté woo ci seen yaram waaw tabarakallahu alayhi salaatu salaam xëyaat waaw sol bulusam ñu indil ko beneen groupe protocole bi indil ko group quarante six groupe quarante six li leen manqué walla seen feebar bi leen diagnostiqué dëpp leen appareil yi seet seen deret ak seen yeneen ngaloo leen ubbi seen bët dañoo gis ne ñoom dañoo bëggante wut ñoom dañoo gis ne mbooloo lañ mu ànd mais bëggante bëggantewuñu seen bakkan di liggéey ci bu ñu bëggante bu ñu séenee ñu bëggante ñu sol seen dàll ba yàq bëggante ga bu ñu séenee ñu bëggante ñu jël seen telefon di audio ba yàq bëggante ga bu ñu séenee ñu bëggante ñu jël seen kàddu ba yàq bëggante ga hmm, waaw waaw groupe bii loolu mooy seen feebar dañoo bëggante wut te ñooy ànd nag ay àndandoo lañ yu bëggante wut seytaane fotosu te naan waaw góor di tëb di dal ndax kontaan Hmm? waaw waaw groupe bi looloo leen dal <laughs> ñi ñoom li leen dal du jàmm li leen dal du jàmm ndax jullit bu bañ ab jullit amul fum ko mën a teg <laughs> kenn mënu koo layal kenn mënu koo layal waaye seytaane daf lay encouragé wan na la sañ nga ko ndax kii daa baaxut baax na kay ab jullit la wa fii ku leen xayri jullit bu baaxut amut yonent bee ko wax al mu'minu al qawiyyu xayrun wa ahabu ilallah min al mu'min ad daif wa fi kullin xayr jullit bu baaxut amut yàlla sàkkut jullit bu baaxut ñoom ñëpp a baax wa fi kullin xayr loolu al hadis la yow nag seytaane moo lay bëggoon la kii baaxut léeg-léeg mu ne la naafiq la léeg-léeg mu ne la dóorkat la lu ne daan la ko wax ci ci li tax nga bañ waa ji waaw léegi nag fooy teg mbañeel gi xanaa dangaa feebar ab julit du bañ ab julit bëgg leen ñëpp nu bëggante waaw nan bëggante nun ñëpp <laughs> waaw bu ñu bëggee wér laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum li leen dalakum métti lu leen dal tey da ngeen a bëggante wut azizun alayhi anittum docteur bi li tax mu ñëw mooy li leen dala ko metti lan moo lan moo dal gaa yi tey groupe 46 mooy dañoo bëgganti wut ceet teet allahu akbar mbokk yi docteur bi daal di xëy sol bulusam bu weex boobu di sànn gàlloo yi ñuy nattee ak noy yu ñuy nattee tasiyon yu ñuy natte xeeti feebar yi mu noppee mu gis ne ñii dañoo bëggantiwut mooy seen feebar waaw ñii dañoo bëggante wut groupe 46 dañoo bëggante ah pour mu faj leen muy leen man de lii leen dal daluma woon maag samay gaay lii leen dal man daluma woon maag samay gaay samay gaay de niñ meloon te ma bëgg ngeen mel ko ba ba àddunay tukki waaw muy leen samay gaay niñ meloon te ma bëgg ngeen mel ko yéen waa groupe 46 ba ba àddunay tukki mbokk yi message bi yonent bi bëgg a yëkkati jëme ko ci nun nun malade yi nun malaad yi nga xam ne bëggante wunu àqante der soojante te jullit ak jullit te ku taxaw ci kanam seetu ba gis sa bopp ku taxaw ci kanam seetu ba rek gis sa bopp waaw allahu akbar mu ne leen man dey maag samay gaay meluñu woon noonu te nun laa bëgg ngeen mel ko ba baa dunay tukki malade yi na selaw sonorisation baa ngi leer te neex nga xam ne fu malade mën a nekk rek dégg na kàddu googu waaw dégg na kàddu googu malade yaa ngi toog ci salle bu rëy ndax malade yii saal bi leen àttan moom day rëy waaw su boobaa saal ba liñ tudde Abdou Diouf ca ca ca ca jam ñaajo boo muytul du doy malade yi ndax malade yi ñoom dañu bari waaw mooy ñi bëggantewut allahu akbar malade yi ne tekk nag di ko déglu moom nan la mel mook ñam àndaloon mu ne ashidaaw alal kuffaar ñoom bu ñu amee kuñ dul bëgganteel mooy ab yéefar moom amee kuñ bëgganteel mooy ab yéefar moom duñ bëgganteeg moom ndax yàllaa leen ko tere waaye ruhamaau baynahum <laughs> ruhamaau baynahum allahu akbar danaa wax suñ mbàkki silla yàlla na ko yàlla yokk wér ñaari baat yu dong boo ko jàngee war ngaa mën a wér déggal ashiddaau ala alkuffar déggal ruhamaau baynahum ku ne xam ne ne ashiddaau baat boobu ruhamaau ko gën a woyof waaw ashiddaau baat boobu mooy sa digganteeg yéefar ni mu war a mel ashiddaau waaye sa digganteeg ñiy wax ashhadu an laa ak fu ñu mën a bokk ak kuñ mën a doon ak nuñ mën a mel ginnaaw ñi ngi naan laa ilaaha illallaah roxamaawo war a dox foofu ginnaaw waxuñu ko asiddaawo fa war a dox bu fekkee da nga wér boo boo boo malaat boo malaatee malaatee nag boo feebaree comme malade yi ah su boobaa da nga feebar waaw bis boo bañee jullit téye malaat boo bëggee bi yéefar téye malaat nga wax la ko tey boo bëggee bi yéefar rek dangaa feebar boo bañeeb jullit ba tey dangaa feebar loolu sens contraire bi ngay def ashiddaaw al kufaar ruhamaaw baynahum waaye nit ñi am na ñoo xam ne ñi malade yi yëg nañ ne ñoom sens contraire bi lañ def ashiddaaw baynahum ruhamaaw al kufaar yaasal jalaali waaw wal ikraam mbokk yi discours bi yonent bi xëya tey arrangé lool malade yi ñu fas yéene loolu leen dal ñu tàqalikoog moom wëlbatin li leen daloon teg ko fi mu war a tege mooy ruhamaaw baynahum mooy mooy xew léegi ndeysaan allahu akbar bëggante yàlla jël baatu yërëmante waaw yàlla jël baatu yërëmante ruhamaaw baynahum cey waaw waaw malade yépp kenn ku ne xool sa morom fas yéene boo xëyee wér boo xëyee wér <laughs> waaw waaw la ma soxna sële ca Kër Masaar waxoon mu ne mu ne ma tey de ci man nga xëy <laughs> déet waay mu ne ma maa ko wax ci man nga xëy waaw bu oto bi paanu toon dey ma ne ko mu ne ma jox la ko caabi ji ma ne waay mu ne maa la ko wax ci man nga xëy <laughs> daal di may wax yeneen yenn ndeysaan yoo xam ne mu ne su ko wax ndax eh, ni mu demee waaw waaye daal ah yi gis nañ seen bopp waaw léegi mu ne leen mu ne leen am na aw gaay yoo xam ne ñoom benn xale lañ yónni ca ñoom mu faj leen un petit docteur il s'appelle Musab ibnu Umayr mu ñoom moom la yonent bi yebal ca ñoom avant muy ñëw mu faj leen waaw docteur boobu di Musab ibnu Umayr moom la yonent bi ne ca Madina di faj ba yëg ne ngone sii faju na ba yëg ne booy bi faju na allahu akbar mu ne ko docteur mu ne ko labbayka mu ne ko kaay nga dem madina fajal ma gaaya docteur ba départ salub jàllabeem amul mbaxana amul saat ak kaala la am gum kaala woo ñaari at ci dëkk ba te ne ba mu jóge woon madina makka ba mu faatoo moom lañ ko robaale ndeysaan yonent bi keroog jooy na ko jooy métti lim doon jooy mu ne gone gii li ko diine ji jaral kañ lañ ñu koy jaral waaw keroog jooy na fu jooy yu metti ngeen baal ma mu ne gone gii mu yónni ko ma dina mu sol aw dàllam kaalawoo kaalam solub jàllaabeem am fi ñaari at jàpp ñett ba ñeent amaatu fi dàll wu bees amaatu fi e, kaala gu bees amaatu fi jàlla bi bu bees mu faatu nii amuñ luñ ko sànge xanaa di ko sàngem ngeer moo ndax kii li ko dina jaral danoonu ko jaral ma ne ko daa dangay da ngay boo xam ne yaa rasulallahi koo faj mu wér koo faj mu wér koo faj te wéruwut fa in tawallaw amuñu sens faxul xasbiyallah mbokk yi sallallahu alayhi wa ne docteur boobu ni musa ab la madina mu faj leen leen faje ba ñu wér sunu boroom bindal leen tableau waaw taf ko ci dunni nit ñi ila yawmil xiyaamati bañ wéree nuñ def tabawu u daara wa iman min qablihim yu man haajara ilayhim yuhibbuuna man haajara ilayhim ña bëgg a déparé ñëw ma dina ñëwaguñu fekk ñoom bëgg nañ leen mu yéen waaw ña déparé Makka information bi lañ dégg yëg ne am na ñuy déparé Makka gàddaay ñëw si Madina fekk si sallallahu sallallahu alayhi wa sallam ñoom bëgg nañ leen te ñëwagunu yax na tag léeg-léeg nga dégg kuy wax ci rajo jenn waay bëgg la ba bëggu laa gis <laughs> jenn waay bëgg la ba bëggu laa gis ndax bu la gisee xamul luy xew jenn waay bëgg la ba bëgg laa gis waaw mu ne gaa yi ki la bëgg ba bëgg laa gis fexeel ba buum la gis bëggeel ga yàqu mbaam wàññeeku hmm? waaw waaw ndax léeg-léeg nga ne daxala xaraja nit nekk ca cël ma bëgg la yëkk ci téléphone am wala mënut a fexe ba jot la àdduna tukki na àdduna tukki na waaw mun a fexe ba jot la àdduna tukki na <laughs> waaw kenn mësu koo gis ku sonal loolu la sonal waaw loolu la mu yaa asu daan wax <laughs> mu ne ma ku sonn say soppee la sonal mbaa say noonu amul ñetteel waaye yuhibbuuna man haajara ilayhim gaa yaa ngi ca Madina muhaajiruna yaa ngi ca Màkka départ ak gunu gaa yi bëgg leen yuhibbuna man haajara ilayhim ah waaw waaw te benn intérêt taxul wala yajiduna fi anfusihim haaja mimma utu benn intérêt taxul ñu bëgg leen mukk mukk bëgg nga jural leen bañ ñëwee ñu bokk ak ñoom lañ am ca dëkk ba wa yuthiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ci gis nga loolu ndeysaan maladie boobu yonent bi faj si bu fajoo ci pénc mi ba ñu faju mën a bokk liñ am waaw wa na ala anfusihim ñu mën a bokk liñ am te biñ bokk buñ bokkee liñ am rek liñ am doynu ci wàllu social liñ am ci pénc mi yor nanu malheureusement waaw buñ watee taxas ak wet dana am ñu yor am ñurut ñurut diggante ñàkk rek ñu yor di gën di am seetetetet mbokk yi groupe 46 maladie ñàkk bëggante ne ci ñoom mooy seenu feebar alayhi salaatu wasalaam ubbi na jataay ba ci nim koy defe saa bu xëyee ci kanam malade yi wax ak ñoom ñaari baat malade yi yëpp yëg seen bopp hmm? waaw malade yëpp yëg seen bopp ku ñu wax anas ma ngi ca mbooloo ma déggoon ngeen ko démb ca mbooloo ma ndax ci kër gi la nekk ci kër yonent bi la nekk anas ibnu malik waaw moom ci kër gi la dëkk mooy duy satala gi waaw mooy lal der bi mooy fàq socc yi isan anas tey waaw di gone gu yem waaw moo tax ñu koy tuddee xaadimu rasul anas na ñokket ca mbooloo ma ne leen dama leen bëgg a jottali li docteur bi wax dama leen bëgg a jottali li docteur bi wax te di ko wax saa su nekk ñun ñi dëkk ak moom ci kër gi guddeeg bëccëg ñi ngi dégg muy wax loolu ma bëgg leen koo jottali yéen malade yi te ngeen baal ma ndax wóoru maa wax ci kanamam ñépp yëg ne gone gii wér na moom it mu ne sëñ bii day wax ne mu yonent bi docteur bii day wax ne ñett kom na ci yow mos nga ñam nga cafkol imaan te ku ñam cafkol imaan du bañati ku bañu du bañati ku bëggu du bëggati ku bañu ma la ko wax waaw mu ne ñett kom na ci yow mos nga cafkul imaan tem-temi imaan kel imaan te ku mos kel-kelig imaan ak cafkul imaan dootul bañ ku bëggu am na koo xam ne kii ku ko bañ dangaa feebar ma wax la ko tey ab julit moom saa boo ko bañ rek dangaa feebar nan nan ko nan nan ci bàyyi xel waxuma waxuma boroom xam-xam déedéet waxuma ilimaan déedéet ab jullit laa wax mbag ma nee na wala tuaadoo man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa mu leen ko teg fenn waaw mbokk yi anas daanee la gut malade yépp di ko xool di bëgg a xam ñett yi taxa ñam cafkul imaan ñett yi taxa am kelkelik imaan xam nga lu neex lu neex bu nekkee ci biir gémmiñ di laal lex yi di laal làmmiñ wi foofu la neexaay nekk imaam Ablaye Ndaw waaw foofu la cafka li nekk malaa dina ko la waaw mu ne koo xam ne yàllaa ko yonentam ñoo ko gënal lu dul yàllaa ko yonentam koo xam ne yàllaa ko yonentam ñoo ko gënal lu dul yàllaa ko yonentam mu ngi tàmbalee am caf ko li koo xam ne kii mën naa bëgg nit waaw bëggub jullit te yàlla tax kooku am na caf ko li imaan waaw mu ne koo xam ne kii daa bañu kéefër fas ragal caa dellu mel ni nim bañee del dugg sawara kooku am na cafkul imaan ñett yi mooy am nga cafkul imaan bëgg yàlla ko yonentam bëgg jullit yi bañ kéefër fii nag waxul sax bañ yéefër yi daf ne bañ kéefër al kufru waaw ah malaat ya daal di sant anas ibnu malik radiallahu anhu docteur baa ngi fi abu hurata jóg taxaw abu hurata jóg taxaw walleen ne kii anas doon wax te mu taxaw nii ma war a wax ci sama kanam maag leen kanamam maag leen di jégglu damaa yàgg dégg muy wax moom kii taxaw ndeysaan yonent bi lay wax kan dama dégg mu naan juróom-ñaari tànt mooy am yomal xiyaam tànt bu nekkub gurubam tànt bu nekkub gurubam tànt booba ñu bëggantewul duñ fa dugg am na tànt bopp ñu bëggantewul duñ fa dugg hmm? waaw waaw juróom-ñaar ñooñu mu ne wa rajulaani tahaabaa fillaahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi ñaar ñu bëggante yàlla da boole leen bañ xëy tàqali ko di san jumaay jëppal daf daan am góor gu santoon sàmb ak góor gu santoon gay ajjuma ju jot góor ga sant sàmb jóge këram jaar ca kër góor ga sant gay moo jóge këram jaar ca kër góor ga sant sàmb ñu ànd ñëw jumaa bu ñëw ñoom ñaar ñooy sësaloo buñ julee ba noppi ñu ànd ba kër góor gi sant sàmb mu dugg këram góor gi sant gay dem këram ba ne kenn ka génn àdduna ka ca des génn defe naa génnuñu at ma mbokk yi bind bi jeexut waaye junju dana ko am xel yàlla nañ faju ngeen faju nu bëggante nun ñëpp waaw nu bëggante waaw nu bëggante nan bëggante waaw ahlul mahabbati ahlullahi yàllaahu bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd jotaay bi nga xam ni day tàmbali 8 heures di jeex 10